li nga xam ni moom la président Abdoulaye Wade jël comme décision bërki démb ni élection parti démocratique sénégalais dénk naa ko docteur Cheikh Dieng loolu ànd ngeen yéen ngi ciy conforté ma sant leen ci gërëm leen ci bu C'est une décision majeure du Parti démocratique sénégalais ma bëgg sous mon nuyoo sous leader yi fi teew ba pare ma jël nuyoo boo xam dafa jëm ci président Abdoulaye Wade dafa jëm ci sunu candidat Karim Wade ma suis ko ci si loxool grand frère Omar Sarr

bëggoon naa ñëw ànd ak yéen wante liggéey bi ñuy def fii moo ko tee assemblée nationale kon maa ngi leen di présenter excuse le président Madické Niang président du groupe parlementaire. ma ñëw tur ci li ñu fi dajale dañoo gis tey juróom juróom benni at. président Macky Sall yor réew mi juróom-benni at de régression démocratique lañu am ci Sénégal président Macky Sall bi ñu njëkkee Sénégal ba léegi marche dañ koy tere Sénégal bi mu fi nekkee ba léegi démocratie day dellu ginnaaw ñu gis président Macky Sall organiser ñaari élection muy ñaari élection yoo xam ni benn awu ci Afrique nous toll foo faut troubles dans les pays troubles sont indi moy ay lendemain d'élection nébuleuse élection l'élection xam en dañ de sàcc mu am ay doomu Sénégal Nous taxaw ni Sénégal Nous, nous ñor Sénégal Nous ñu le février 2019 ñu gis Macky Sall processus bi mu tàmbalee tëral élection yi mooy un hold-up électoral moi, li nga xam ni daa bëgg foqati nguur gi au nom du peuple tey ay leader taxaw ni dañuy regrouper autour d'une plateforme politique une initiative pour des élections démocratiques Nous ni duñu seet duñu toog seetaan bañ sàcc élection yi ñuy génn ci mbedd dañuy ay magum waxon naa ko moo gën ñuy nekk ay magum xamoon naa ko ñu ne tey dinañ ñëw assumer leur responsabilité historique parce que ginnaaw réew mi ñun ñoo ko bokk te xam nañu buñ demee ci élection yu awul yoon réew mi dina dugg daana kawo ñu ni ce kawo nous devons le prévenir parce que Sénégal ñun ñoo ko moom du ñu bàyyi kenn du ko yàq moo tax ñu ni dañuy taxaw tey taxawal bii plateforme ñu woo président Macky Sall ni ko président Macky Sall kaay ñu waxtaan mu yaakaar ni mën naa nax opposition yi wut ay parti yoo xam ni ay parti satellite lañu ñooñu sax dem nañ ba ci digg ba seen yaram daw ñu ni lii APR di proposé mënuñu cee ànd bërki démb président Macky Sall recevoir leen ñu yaakaar ni président de la république moo leen di recevoir le président de APR moo de Le recevoir Le Le plan de concertation yi est le APR le président tënk ni loolu lay loi sauf la loi électorale pour l'Assemblée nationale l'histoire a donné raison au parti démocratique sénégalais l'histoire a donné raison à l'IED pas participer à ces concertations factices, à ces concertations de tromperie yi nga le président Macky Sall organisé wu mu tombe nous tombe au lendemain des élections législatives nous ñu nungu élection yo xamni un militant de l'APR moo koy organisé fof li yàllay def fof li def Aliou le Ndiaye il moo a démasqué de ndax mom mo taxaw ni en tant que organisateur des élections il fera tout pour que son candidat Macky Sall gagne les élections présidentielles. Alors, alors ça signifie quoi? que nous ñun pas faire ni un militant à perdu d'autres organisations l'élection lorsque nous commençons sur un plan d'action le premier jalon de ce plan d'action est ce meeting là que la commune de Djiddah organise aussi pour l'ensemble de l'opposition patriotique réunie au sein de l'initiative pour des élections démocratiques Mon tax bu mobilisation pour la bu département de fait defee mobilisation bu rafet bi bu le département de fait defee mobilisation bu rafet bi wane le peuple a pris son destin en main le peuple est en marche et Macky Sall entendra la voix de la raison Macky Sall entendra la voix du peuple devra reculer pour organiser des élections libres démocratiques transparentes rentrer dans le chaos nous appelons le président Macky Sall à la raison nous appelons le président Macky Sall à écouter la voix du peuple nous appelons le président Macky Sall à accepter le verdict du peuple le verdict du peuple c'est sa défaite prochaine le 24 février inchallah au premier tour